di fàttali ni le premier ministre Ousmane Sonko est présentement à l'UGB mi ngi fii ni UGB euh, di délivrer benn message bu am solo boo xamante ne moom ak étudiants yi la doon leen expliquer euh, naka la gisee vision Sénégal waaye itam nan ak naka la ñu bëgg liggéeyee ànd ceeg askan bi surtout ànd ci ak étudiants mi ngi noonu le premier ministre va poursuivre na jigéen si mënul ñëw na jigéen si micro bi micro bi nga ko ma xool xaaral mu gën a donc euh, xam naa ni damay rek li leen bëgg a wax mooy lu weesu njëriñ biñ ciy ci setal suñu gox setal suñuy kër te loolu ñu am solo la ci am na loo xam ne ci symbolique mooy message bi nga xam ne am na loo xam ne C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le premier micro, le premier micro. Le micro doré, le micro doré. Le micro doré, le premier micro. Pardon. Kon ñu ñu conclure rek. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. baax na baax na c'est bon maintenant c'est bon. quoi. yi ma conclure rek wax leen ni soo gisee président Diomaye lancé journée yi mooy lu neex mooy wane image bu peuple boo xam ne lañu tàmbaloon mooy waaye sa bopp lu ma gisul sama njëriñ tuuti rek duma ci bokk lu ma ne di mën boobu te boobu na boo xam ne solidarité am na ci sens de l'intérêt am na ci te loolu am solo moo tax la ñuy wax ndaw ñi mooy na ngeen ànd ak tey ak daw te xam ne ñi ngeen wóolu ba jiital leen yéene leen tax a jóg suba ak ngoon bu dégg te les solutions waxuma la ay at waaye d'ici quelques mois vous allez commencer à voir la matérialisation concrète nañu problème yi am fii ci wàllu assainissement ndax loolu taxaw na jóg jox naa instruction ma ne monsieur le ministre de l' assainissement bëggatuñu ñu naan ñu néegu étudiants yi ndox maa ngi koy ball loolu c'est fini am na am na solution boo xam ne solution provisoire la dañ ci war a def dès lundi dañ ko def dañ ci war a mobiliser ci fond dañ ko mobiliser entrepreneur bi def lu war a def pour ñu jàkkal loolu am na leen solution boo xam ne c'est plus structurel moo tax ñu doon tabax station bi fële loolu it jox nañ ci ndigal monsieur le ministre ak monsieur le DG Naas pour que liggéey bi yeggali ko ci nu mu gën a gaawee bu ñu koy def nag préoccupation la boo xam ne du question dañuy baral loxo étudiants yi wala UGB waaye fépp problème yi am ñun suñu responsabilité ñu xool ñu ñu teg question dernier message may lancé nag aux étudiants peut-être du fii laa ko waroon lancé ndax fi defe naa waaye étudiant moom mu nekk ci campus yi di xeex di génn ay taak ay paquet jaasa di jaxase ay paquet ko fi wax ndax ne ni Maguette bi relation xam ne relation française la su ngeen amee da ngeen may wax di ngeen ma ko wax ko wax ndax samay doom leen dafa am loo xam ne président Bassirou Diomaye Faye daf ne am na ay étudiants yi jamante ay paaka semaine bu ne dinañu ay victime ngi hôpital loolu du yoon carte sociale bi pour li ma wax keroog bu may loolu lay wax suñu gouvernance yërmande moo ko waral ak flexibilité waaye loolu dàqante wul ak fermeté saa su ko dañuy sonn étudiants yi vous êtes l'avenir de ce pays le prochain président la république mu ngi ci yéen le prochain premier ministre mu ngi ci yéen yéen le prochain président de l'Assemblée mi ngi ci yéen kii njëkk a bu Sénégal bu daw jógee Sénégal dem directement mi ngi probablement ñun ambition boobu la ñu am pour léegi donc là l'université doit être ce temple et ce qu'on veut renforcer au sein des universités kon ngi leen di soññ ci loolu concentrez-vous sur vos études étudiants médecine ñun jaar nañu fii nee naa léegi recteur de l'œuf parce que terrain football bi dañ ko yàq léegi basket bi lañ mën ci def étudiants yombul mais c'est le court moment yoo xam ne mooy déterminer peut-être sa cinquante pour cent année ngay vivre donc da ngay mun benn yoon rek def ko yàlla def ci sutura te loolu la ñenn ñaanal Je berek! Allez, Sonko! Je berek!